ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara ci weer wu tedd wi nga xamante ni moom la ñu nekk tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim ñuy ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin suñu jullee korite yàlla nangul ñu azaka yàlla nangul ñu julli ji te yal na bu mu nekk suñu koor bu mujj yal nañ ko woor at yu bare bare bare bare bare bare mu ànd ak nangu yal nañ ko yàlla defal Ah, kon nag waxtaan bi dañ koy def ñett bi ci njëkk mooy risaalatul marati lettre bi nga xamante ni moom la jox jigéen boobu mooy bu njëkk bi bi si tegu mooy almaratu xablel islaam jigéen nan la nan la meloon lu njëkk lislaam di ñëw ñetteel bi mooy rôle bi nga xamante ni jigéen dana ko taxawe ci lislaam kon ñett yooyu la ñuy xaaj waxtaan wi di ñaan yàlla nag yàlla nañ ci yàlla doon lay jàppale a ah, ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yàlla dafa dogal waxtu wi daaw lan ko fi taxawaloon ñu ñaanoon ko ne yal nañu yàlla may ba ñu def ko déwén yàlla may nañu tey ñu ngi nii di ko def yal nañ ko àggale ci jàmm kon ñi ngi ñaan yàlla nii ñu ko defe daaw def ko ren yal nañu yàlla may nii ñu tooge ñu defe ko noonu déwén kenn bañ koo wuute te lépp nag di ndam ci biir di ndam ci biti nit yi mu war a sant yàlla dafa bari bokk na ci nag bu la yàlla defulee xéewal nga sant ko yàlla mu wax ne li ma leen defal ci xéewal su ngeen ko nangoo xam ni man dong la mën a jóge maa leen ko defal te defalu leen ma lu tax ma defal leen xéewal bi yàlla ne su ngeen xamee ni man maa leen ko defal ngeen sant ma dolli leen kon yàlla nañu yàlla dolli ah li ma wax léegi ma ne doomu aadama lu mu war a sant yàlla dafa bari su yàlla dogalee ngay daagu ci mbedd jaxaaw yi amoo fi sens interdit yaa ngi ànd ak wér yaa ngi ànd ak tal yaa ngi dox di so faji sa soxla war nga sant yàlla seetal ka tëdd hôpital balaa muy jóg dañ ko jàpp mu jóg balaa muy def dara ci gémmiñam danoo yëkkati defal ko ci waaye moom mënu la defal boppam dara ci gémmiñam kon su la yàlla maye loolu war nga sant yàlla xoolal ka nga xamante ni moo nekk ci prison ba léppam ñu tere ko ko suy dem di tuuri ndox sax dafa am ñuy ànd ak moom yow nag su la yàlla mayee ngay tuuri ndox te doo ànd ak kenn di toog fu la neex kon war nga sant yàlla kon ñu dellu di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ci boppam dafa am yoo xamante ni moom dong moo am kàttan ci def ko waaye doomu aadama amul kàttanu def yoon dañ koy faral di def góor ñiy jullee néew danañ koy faral di dégg dañuy génne néew bi ci morgue bi tëral ñuy wax ba mu yàgg mu ne fii mu tëdd ma ni déedéet tëdd fi de dañ ko fee tëral kan moo ko fi tëral kooku nag moo jar a bàyyi xel ci lépp muy subhanahu wa taala ah, yàlla moomu ba mu bindee àdduna te am lu mu namm ci àdduna dafa am ku mu préparé muy xaa muy aadama am fu ko yàlla tegandi muy àjjana waaye àjjana yàlla bindul aadama pour aadama dëkk àjjana ba faw àdduna bii moo taxoon yàlla bind aadama bàyyi ko àjja bàyyi ko nag ca àjjana quelque temps yàlla nag dafa lu mu bëgg def daf koy wutal sabab ca aalamul asbaab la ñu nekk yàlla lu mu bëgg daf koy wutal sabab waaye bu muy bind aadama di ko yóbbu aajana nekk fa ba fow taxul woon yàlla def ko fii de àdduna fii la ko yàlla prévoir pour andi wàcce ko fi waaye nag il faut que yàlla wut sabab te aadama moomu moom kese kese kese kese du du woon ci moom pour mu def li yàlla bëgg il faut yàlla wutal ko wéttal wéttal boobu nag mooy xawaa kon jigéen ba àdduna sosoo ba léegi moo fi nekk lu fi jag rekk jigéen ko jagal góor am na lu mu mën waaye balaa mu koy mën jigéen taxaw ci wetam yàlla xam ne ne aadama dong dong du mën a def li ko yàlla sant su boobaa kon lu bëri dana ci manqué waaye mu wutal ko wéttal mu nekk ci wetam muy sunu maam Xawaa ma ni kon àdduna ba mu sosoo ba léegi jigéen moo fi nekk waaw jigéen moo fi nekk taxaw ci wetu góor góor am na lu mu mën waaye su jigéen matee ci lu koy su jigéen ñëwee ci lu koy gën a mën ci loolu la yàlla wax ne wa laqad karam naa bani aadama wa xamalnaahum fi wal walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin min man xalaqnaa tafdila yàlla mu wax ci alquran mu ne yàlla dafa teral doomu aadama sóob ko nag gannaaw ba mu ko terale yàlla sóob ko ci jéeri ji sóob ko ci géej gi yàlla ne ma defal ko ay wërsëg yoo xamante ni na mu gën a teeye ma gënale ko nag ci lu baree baree baree bare bare ak gënale ci li nga xamante ni moom laa bind xoolal yàlla nu mu tëralee doomu aadama dundam mënoon nañu def comme rabbi waye nak nag ñu teral mo tax ñu gëna tedd luddul nit nit ko gëna tedd luddul nit nit ko gëna tedd te kon mu ne inna awwara risalati lil mar'ati inayatuha bil usrati wal usratu taqumu bi wadaifa adida iqtisadiya wa siyaasiya والدينية ولكن أهم عمل لها أنها مربي الطفل فالإصلاح الحقيقي للأمة إصلاح المرأة وإصلاح المرأة هي إصلاح الأمة mu ne bu ñu xoolee feuille de route bi nga xamante ni la ñu jox ñu sant ko ci mu war a nekk ku sonn ci li nga xamante ni mooy defar famille te famille na ku ko wax wax ay responsabilités yoo xamante ni dana aju ca ka nga xamante ni mooy defar famille boobu moo xam lu jëm ci wàllu économique moo xam lu jëm ci wàllu diine la moo xam lu jëm ci wàll defar pénc mi pour mu jag mu ne waaye nee jigéen li ci gën a am solo mooy fexe ba ñi nga xamante ni ñu ngi ci suufam mu fexe ba képp ku leen gis rek nawle loolu nag moo gën a jafe nga fexe ba ki nga nekkal ku ko gis naw ko te muy nit ni yow bëri ay bëgg-bëgg bëri ay mbañ bëri yoo xamante ni amul njariñ bakkanam jub ci soo fexee ba kooku ku ko gis naw ko xamal ne yow la nga yore liggéey bu rëy la te liggéey boobu liggéey bu nu toll nag boobu la yàlla sa jigéen mu war koo taxawe ndax yàlla na boo seetee mën nga ne dafa far ci wàllu jigéen ñi soo demee ci alquran am na fa benn saar bu ñu tuddee suuratu nisaa yi yàlla jigéen ñi ne tuddee saar boobu te amoo amul ci alquran saar bu yàlla tuddee suuratu rijaal yi saaru góor yi amul waaye suuratu nisaa moom mu ngi ci alquran. te ci saar yu gën a gudd ci la bokk yàlla jël saar boobu lëmm tudde ko jigéen ñi wax lu bari tamit ci jigéen ñi ci biir saar boobu yamatul foofu de yàlla jëlaat Maryam mooy yaayu yont yàlla Isa yàlla tudde ko ab saar wax lu bare bare bare bare ci Maryam kon jigéen suñ ko dee seet ci nii rek dañu ne diggante moom ak góor yàlla moom la gën a faral ndax yàlla li mu bëgg àdduna bi jage ko ci jigéen la mën a jaare ndax jigéen mooy produire loolu yàlla defu ko ci góor jigéen la ko def kon boo seetee ba léegi da ngay mën a dégg loolu ñu wax ne yàlla dafa mel ni ci côté jigéen ñi la gën a faat kon jigéen loolu ko yàlla sant pour ki nga xamante ni moo war a jagal àdduna bi war a jóge ci jigéen jigéen war koo jàpp ba ku ko gis naw ko liggéey boobu yomb moo tax mu ne fan islaaxul xaqiiqi lil ummati mu ne kon yëwénal bi gën a dëggu te ëpp doole yëwénal yëpp mooy ñu fexe ba yëwanal jigéen jigéen sunu fexee ba mu yëwén lépp lu ko jegeeti dana yëwén lépp lu jóge ci moom dana yëwén mu ne allemand yi ak français yi ak anglais yi ak russie yi mu ne dara dara dara nekkul woon luñ leen di mën a askanele lu dul ci seen ndey ya lañ leen daan askane mu ne kon boo seetee jigéen moo ëmb góor moo nekk ci kanamam moo nekk ci ginnaawam moo nekk ci kawam moo nekk ci suufam moo nekk ci ndeyjooram moo nekk ci càmmoñam nee na ñoom ñii ñu tudd kuñ ci mës a joxoñ wala ñu xool la bët rek sa yaay moom moo tax mu ne kon jigéen mooy ndaw li nga xamante ni moom la yàlla yabal ne ko nag dama la sant pour nga sonn pour àdduna bi yépp mën a jage jaare ci yow li nasri saadati fi lmujtama wa fi lxaqi an man laa yaqilu an tisina fi lmia min saadati ummati yarjiu ila almarati nee na kon li ko yàlla sant yàlla teg ko coono boo xamante ni daf ko ne li ma bëgg àdduna bi jag duma ko jaarale fenn ci yow laa koy jaarale soo déggee nag ñu ne la umm mooy ndey mooy koo xamante ni lépp ci moom lay bàyyi ko mooy jigéen mu ne kon su ne nee àdduna bi mën na baax nee na quatre vingt dix pour cent yëpp ci jigéen lay dellu quatre vingt pour cent suñu ne àdduna bi mën na baax mën na jag ñi fi dëkk mën nañoo baax mën nañoo yëwénal loolu lépp ci jigéen lay dellu benn bindkat arab bu dëkkoon Liban ñu koy tuddee Ahmadul Amin nee na man dem naa Europe def naa fa ñaari tukki yu gàtt waaye nag yàgg na fa def waaye nee na tukkeem yu yu mujj yu gàtt la nee na ñaari yoon la nee na wër na sarq penkook sow ci Europe di wër di laaj kàddu googu ñuy tuddee jigéen nee na wër na ko laaj ñaari yoon ñu ne ko تستطيع المرأة أن تكون السعادة للأسرة وسعادة المجتمعات وبلسما للجراح للأمة وأداة فعالة في بناء نهضتها waaye nee na bu mu wëree laaj tontu bi daal benn la dañ ko ni jigéen dong dong dong moo mën defar famille ba ku jóge ca famille ba baax nee na jigéen dong moo mën defar société bi nee na jigéen médicament boobu nga xamante ni mooy faj góom mu ne noonu muy fajee góom nee na noonu la jigéen mën a faje bépp sikk bu nekk ci société bi nee na noonu la ko jigéen mën a mën a faje nee na sax jigéen moo ëpp doole moo ko gën a mën médicament boobu nga xamante ni wala loolu nga xamante ni mooy faj góom nee ni jigéen moo ko gën a mën ci société bi kon nga xamante ni jigéen liñ doon wax léegi risaala bi nga xamante ni moom la ko yàlla jox mu ne almaratu hiya mabaasu xayaatul ummati nee na ballukaay bi nga xamante ni umma bi yëpp ci li ñu war a mën a dunde nee na jigéen la su gàttañ loo nee na lépp yàpp nee na jigéen su gàttañ lépp yàqu waaye su taxawee lépp baax kon yal na leen yàlla taxawal mu ne kon jigéen mooy defar góor ñi jigéen rekk moo mën a defar góor mu ne ndax nit ñi xam nañu lan moo tax yàlla bind jigéen ahmadul amin moo ko laaj mu ne lan moo tax yàlla bind jigéen bañ ko ko laajee mu ne innama xuliq naa innama xalaq naa li taxluqa rijaalu min al uzama nee na li tax yàlla bind jigéen nee pour yàlla defar ay góor yu màgg yu yiw yu baax nee loolu moo tax yàlla bind jigéen femme APR yu jaxaaw caali maa ngi wax si turu waa jaxaaw yëpp li nga xamante ne moom mooy suñu mbëbët te ñu bëgg ko mooy ñu defaral ñu tali bi dem Saint-Jean ñu defaral ñu ko ak suñu yoonu kanaal gi parce que foofu tam amul éclairage publique te vraiment dafa lëndëm bëgg nañ ñu defaral ñu ko loolu daal mooy suñu mbëbët suñu kàddu ngërëm mu ngi mu ngi jëm si suñu président nu Sène ak waa Jaxaaw yëpp ñu ngi gërëm waa Jaxaaw gis nañ ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo teew fii fàttewuñu kenn ku ñu limul rek fàttewuñu la ñoo ngi gërëm suñuy borom kër suñuy borom kër yi nga xamante ne saa ñu jógee ñu bàyyi ñu am si ñoon am si ñun confiance ñoo ngi leen di ñaanal yal nañ yokk ba yëg ko macha allah wax dëgg yàlla saa yu ñuy jóg dañuy bàyyi suñu njaboot tam ñu ngi leen di gërëm ndax ñoom ñoo ñuy defee foofu noonu si kër gi maa ngi gërëm présidente yi Fatou Diouf maa ngi gërëm Mame Fatou présidente la maa ngi gërëm Adama Diédhiou présidente maa ngi gërëm Chantal Faye présidente la maa ngi gërëm Tako présidente la présidente yëpp man maa ngi leen di gërëm ñoo ngi gërëm waa jaxaw yëpp responsable daayira yi écrit mbër yi ñoo ngi gërëm ñëpp fàttewuñ kenn ñoo ngi gërëm jeunesse bi bàcc sow xale yi mu jiital ñëpp ñoo ngi leen di gërëm suñu maire koñ yi ndax dañoo bokk si suñu groupement yi ñoo ngi leen di gërëm ñëpp déplacé wu ñoo fàttewuñu kenn ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp conférence bi bii mooy deuxième édition bi ñoo ngi ci kontaan bu baax a baax te xam ne jaxaaw la ñu am ñun amuñu leneen dul jaxaaw caali looloo tax nag ñu ànd ak suñuy jigéen ñi nga xam ne wax dëgg ay jàmbaar lañu ay gor lañu dañoo gor ba gore fu mu jeexee ñu ànd ak ñoom ñuy liggéey toujours si APR jàppale nekk ci ginnaaw Thierno Alassane Sall ministre de l'énergie. am na ay kàddu yoo xamante ne jigéen ñu xaw jot nañ ko fa yëkkati ci wàllu tëli wàllu tamit wàllu éclairage public yow en tant que responsable politique lan ngay wax ci loolu. kooku moom wax dëgg dafa jot. te war na si jaxaw muy jaxaaw wax dëgg suñu yoonu almeer yi nga xam ne yoon bi chaque chaque instant taw bi su ñëwee nit ñi mënuñoo dem di suuli nit ñi mu mënuñoo suuli tey wax dëgg yoon boobu dafa wa dafa jot dafa jot ñu defar ko éclairage public sooy dem côté almeer yi ak euh, sooy dem ginnaaw canal gi ak yooyu yëpp yoon yooyu dafay lëndëm kurus te wax dëgg jaxaw nag jot na nag jaxaw am loo xam ne au moins dafay leeral dëkk bi koku nak ñu ngi autorité ñu ngi interpréter autorité yi ñu taxaw ci lolu japp ci bu baaxa baax pour lolu mëna am ginnaw bañ santé yalla julli ci sang-sang sayidina mohammed dañuy sang sante suñu ñaari waju di rafetlu bis bi bi bu bu baaxa baaxa baax di gëreum di sante suñu responsable charno assan Sall suñu ministre ñu ngi koy sante baax diko diko di ci taxaway yu taxawaayu rafet yi nga xamantene mi ngi koy def di fatali tamit ne ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi ci ginnaw APR ñu ngi ci ginnaw charno assan Sall ñu ngi ci ginnaw Ousseynou Sen bu baaxa baaxa baaxa baax waaw di di leen ñaan tamit ñu ñu ñuy ñu ñuy bàyyi xel ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu féete ci kaw ñu ñuy bàyyi xel ci suñuy jafe-jafe yi ñuy am fii nii ci suñu suñu dëkkuwaay waaw wax dëgg yàlla sant nañ bu baax conférence bi moom wax dëgg yàlla réussir na lépp lu ñu ci bëggoon am nañ ko ñu sant tamit Moussa Ali di sant tamit femme APR yi nekk jaxaw caali yëpp gis nañ ni ñu taxawaaye ci bis bi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax di ko di sant tamit euh, jeunes yi mbër waaw taxaw nañ ci organisation bi bu baax fanaan fi sonn def lu nekk ngir ba bëgg bis bi réussir wax dëgg yàlla sant nañ ñëpp kontaan nañ bu baax a baax.